yéen a ngi teewlu info 221. mu ne leen nous n'avons rien contre la France ñoom loolu la ñuy bind seen ñoom ñëpp après ñoom bi ko laajee ne ko ndax euh, tey bu la bu la saway ci woon ba doo dem Canada ndax naka ngay def loolu la ko wax heureusement Sonko tontuwul ci loolu tontuwul ci loolu amul benn benn li gën ndaw lu mu ci wax c'est-à-dire bu ne woon ñaari question ñaari répondre rek moo ci kenn mënu maa doon candidat ak lu ma laaj danaa ko def loolu baaxut xam nga lu tax baaxut mooy France 24 dañ ko bëggoon a jaboli sax ngir mu jël kàddu yu radical adduna bépp ko dégg ne kii day waaj ngir guerre te la bu Macky Sall bi lan nga ci xalaat ne ko nag bu ñu xoolee maanaam 2016 bu ñu wotee référendum bi day mel ni kon septembre boon bokku ci tubaab tubaab war naa wax loolu moo ma la question yi. waaw waaw léegi ab wax loolu c'est-à-dire mooy Élysée daa fa la question yi jógee léegi sëñ Fallou question yooyu ñu laaj moom la assan Gueye di laaj di moom la Assane Gueye daan laaj moom la Babacar Fall di laaj moom la Birahim Touré laaj ñu ñëpp moom la ñuy laaj lii mooy li France jox Macky Sall ñu jox ko suñ presse bi ñu di ko laaj ba tamit seen bàyyi ñëw jël question yi di ko laaj yaa ngi dégg waaye ñoom. France ak seen journaliste yi mënuñoo fexe ba jël suñu réew joxaat ko Macky Sall wala ku ko nangu dib jàmm léegi bu dee daan wax ko France dib jàmm ku nangu Macky Sall jiitoo suñu réew mi nga nga dib jàmm liggéey ak liggéeyut de problème ay sept ans ay pli ay sinanga mak naam ñun ñoo dul nangu loolu ñun ñoo dul nangu waxanteeg nit ba pare waxtu woo jot mënoo du dem parce que dañoo jaayante wut ak moom ci samaxan wataaxatan dañoo jaay dañoo jaayante ak moom ci waxtu bu waxtu woo jot moom bu ko jéem bu ko jéem bu ko sax jéem da koy sagganee nag da koy sàggane man da ko mel ne man loolu maa ngi koy lancé appel ñëpp ci Sénégal ku mel ne man man bu ñu am bu ñu lu ñuy wóote ci réew mi ngir contrecarrer loolu ma tëdd sama lal bu ko def luñ ci woote dinaa ko def ma musuma koo def waaye luñ ci woote naa man maa du man maa du nangu daal dund ci réew ñu ku may àtte te jeexal ma man moomu nekk sgor ma nekk jàmm du ma ko def ko man nag defal waaw moo ngi troisième candidature mu ne ko troisième candidature kooku du man ak moom maa Sénégal ñoom ak sénégalais yi la léegi kon ba tey Ousmane Sonko lancé na message Sénégalais yëpp yéen Sénégal ku mu neex nekkal ab jaam ku mu neex nekkal as gor fakama abdin yaqoomu maqaama hurrin fakama hurrin yaqoomu maqaama abdin wallahi wa rabbil kaab ku nangu Macky Sall gu war na la 2024 bu la boo ko leeru bu démb dellu si waatoon ci jaam yi ngay bokk boo jàppee sa bopp as gor rek doonoo as gor doonoo parce que du problème même bu defoon suñu léegi ay wurus ak or cest à mooy démocratiquement li Thierno Souleymane Baal waxoon mooy dëgg la ne woon bu leen fal ci benn famille ñu wéy di leen yor te ku ngeen xas fal benn yoon ba ko ñaaral bu mu ñett la mën woon tam ñi ngeen defal ñëpp na ngeen ci ko di ko ko mu continuer ba ko appal bu ko delloo bu ko ko delloo bu ko naqaree danañu ko ko delloo na ko ñun du ñu man da sénégalais yi jàpp wax jooju man ci laa bokk man sénégalais yi jàpp man wax jooju waxewu ma émission eh, émotion waxewu ma xol bu naqari xam nga lu may waxe man fu may waxee mooy Lat Joor nit la comme ñun képp ay tubaab bi fi ñëw bëgg nangu soo mën a doon ko fi nangu ci lii la dee yéen a ngi nii bu yàgg ba tey yéen a koy tàgg te da ngeen di wéy di ko tàgg hmm. Alboury Ndiaye aussi la même chose bu yàgg ba tey a ngi koy tàgg ku ci bokk sax ngeen di ko tàgg yéen a ngi nii aussi yéen a ngi tudd ay ay buur sina yu kenn xamut ay position képp lañ amoon te position yéen xam nga ne ñoom génnuñu génnuñu ko mais lu tax ngeen di leen que bëgg gañ bëggoon mu jaral leen jox seen deret mabbe joxu baax yàlla na ko yàlla ko jamee nee na doom ji ne mu ne euh, doom ji ne xaaral ma jëmale la penku bala nga faatu mu ne ko bu ma jëmale penku ndax penku ñu defen dama ma faatu ñu ne doon daw ñu sànni ñu sànni ma xëy ñu sànni ñu dóor ma bal xoolal tolluwaay yooyu loolu jëf ja ak pas-pas la nit ñi tàgg loolu nag ba tey ay nit lañ comme ñun gënuñu ci dara ay naa bu doon laaj doon gënuñu ñu de xaaj ñoo gën yàlla leen bind waxtu jot mu indi leen waxtu jot mu jëlee leen yàlla sàkko ñu aussi waxtu jot mu waxtu jot dañoo fiy jëlee léegi nag nit ki dañuy ñaari ñaari waxtaan la mooy yi ñu waxtaan ci kanam ak yi ñu waxtaan ci ginnaaw te yaar ne boo góorgóorlu am rafet kon Sonko bu bu ñu joxee euh, bu waxee loolu mooy Sénégal yëpp lay waxal bu feyee man ngeen yéen toog mu jëlaat seen pale bi di leen di leen gouverner lu ko neex nee na leen du man ak moom man ak waa Sénégal ñu ne waa Sénégal yi mu ne ko ñoom moom Macky Sall amul lan benn liggéey rek bu dul ci adduna bi ñun mu monte parce que waa ji waa ji moo ko laaj ne ko est-ce que maanaam opposant sénégalais bi maanaam dañ leen di tudd ci terrorisme di leen tudd ci li ci des mu di leen tudd ci li ñuy wax euh, force spéciale léegi nag force lii na ay itikat ay itikat la yoo xam ne France moo ko moo ko ngir jàppee ko ma ma jox la ci benn misaal France bi mu jëlee itiketu rébellion ngir rébellion ba ca Casamance moo ko taal Sonko dëkk fa mu ne ginnaaw fa la dëkk te ay bokk moo koy def nañ ko dugal ci rébellion ga keneen ko dossier tëj ko ndax dossier viol bi di daal Amadou Diouf moo génn ne Ousmane Kabiline Diatta ab rebelle la moo ko wax moo ne dossier bi ku ci taq danañ la jàpp Ousmane Sonko ne leen man mii ngeen soxlaa jàpp. keneen doo seen ak ñi mel ni moom ak ñi am information Sénégal gën démentir leen ba amuñ fu ñu jaar ngir dëggal leen ki ñi ay robel lañ mm. ñu ñëkke loolee ñu dóor ko def ko lu ne maltraité ko ngir maanaam mu sensé avis mm. ba rey nañ ci nit François Mancabou ba tey ji waxaguñ lu leer boobu boobu jàllut ñu daal di créer lu ñu wax force spéciale jàpp ci ay nit ñoom mel ni keroog rek ah, waa waa am saa ak i moromam dikk na leen lii nii amul ba adduna bépp xam ne loolu échec ñu wëlbatikuwaat ne kon nañu làmb ji des li ma la wax ne mooy question yoo xam ne France di laaj ngir dugal sawaay bi aussi ñu daal ñu daal indi question bi ñu wax question viol bi ñu indee viol gis nga ko ci lam lañ ci tontoon viol mu leeree ne viol amut ni mu leeree ne seq amut ndaw si moo nañu dañ dama ëmb yéen ko dégg yéen ñëpp ñu Sénégal ñun na seq fi nekk ñu ndaw si toogul fi ne dafa ëmb ñun ñëpp na dafa ëmb taxawut fii ne ah ñëpp wax ko ne te lay di ko rajo ko wax mu xëy ne ëmb ñëpp na ci nee na musu ko wax ah. te ñun ñëpp ñu ngi ne cell fi ne kenn ci ñun waxu ko waaw way hmm. ndaw si moo ne bis damaa fi yor ba yàgg mu ne waxuma sax fi yor ah. maa ngi na waat ni sequñu hmm. ba pare joñen ñun ñu continuer di wax ci yor comprendre nga hmm. xam nga kon desaan naa fekk sëñ bi maanaam réew mi ful la renañ ko mu nga amee taw ja ndaw si moo xëy na leen Ousmane Sonko ñëw na ba dem waaye deful dara kon ndaw si man Ousmane Sonko sequñu ba pare ñun ñu toog men ñu toog duñ ci wax te ñun bam ne da daf maa violé ñu wax ci ñun ñëpp ba ko def ak wis na wuti naa ma naan lu tee nag ba mu demee ba wóor na defu ko ñu doon defu ko xanaa ay jullit nekkuñu fi am na sax ku ma dégg ci ci dara bi seen di ma man ay ay audio intéressé wu ma xoola wax xoola wax yooyu rek ay audio man du ma déglu audio xanaa amut a whatsapp audio ku ko déglu amut audio ci français ko ko xam musique bi jàll donc ci gisoo ci image audio la musique bi jàll te gisoo ci image audio la kon la kon wax audio yi seetal Ousmane Sonko du ma ko déglu loolay max naa ne am na ku ne maanaam lu tee dem kaso dong lu muy def dem kaso bu dégg lu mu ci comme ñoom da xam nga luñ bëgg dem kaso gi rek lañ bëgg mu demee kaso rek lañ bëgg danañ ko am ñoo ko dul nangu mu dem kaso ñoo ko dul nangu bu defoon luy tax mu dem kaso man ci ñoo koy accompagner pour mu dugg kaso ci laay bokk man on sur axaaka ay jullit lañ de yonte moo tënk Ousmane Sonko te ku mel ni man man de personnellement jaayintuwuma ak moom samaan wa taxafan déedéet jaayintuwuma ko moom damay am sama gis-gis ci biir gis-gisam di wuuteeg moom ci ay xalaat man yonent bi laa jaayinteel ci samaan wa taxafan lu mu wax man fas yéene naa ko def Serigne Touba nekk ci sama jëwri dégg nga mu na na na dem kaso man bi defoon kaso ñu ne unsur da cee war parce que ko criminaliser kay tëddi mu lànkee sama lal bii laay tëdd duma ko génn du ma dem fenn mais ñu bëgg koo tëj ci ci yomb ñu toog di nii mën naa am mën naa am lu mu bëgg a def état doo ko fa defee ñu ne déetaa mu jàpp ko tëj su paree du ñëm si si diw diw diw loolu mooy li ñaan dafa jël lew nagu weex wa jël nagu séewa xonk wa des mënoo ko tey yaa ci ko man ba nga lekkee ñaare nga ma lekk ñu nag loolu la njul xaar muy am ci suñu diggante moom mu ne ko nag Ousmane mu ne ko nag Macky Sall dafa dara lu di yàq dara opposant yi daal duñuy wax ci àdduna bépp mais ñun daal nii nag naag lañ mel. dernière question bi nag mooy question multinationaux yi maanaam yéen kat seen dëkk ba dafa am ay ay multi ay ay ay ay ay mouvement na français xam naa moom bu bu bu iñaanu doon danaan Guy Marius Sagna rek frappe dégage ñoo ci frappe France frappe dégage ñoom ñoo ci gën a ma tey da koy gis ci ci réew ko ba tey ba pare journaliste de fi nga xam ne ñoom laaji France lañ yor laaji France lañ yor damaa waroon a jëkk ci France 24 li ko taxawal ba pare door wax sax nii waaye hmm. France mu ne ko mercenaire français yi mu ne ko mercen mercen mu comme ni ñu jëlee ay collaboration wala na ay collaboration militaire wala wala accord militaire li doxu ko mun tubaab bi xam nga du wax comme ni ñu fa jëlee France ca Mali ak yeneen dëkk yu dul yooyu ak sax Burkina mën naa mu am fa muy mercenaire russe yi fa ñëw mercenaire la wax xam nga mercenaire lu muy signifié mooy kuñ xeex ci muy guy guerre guerre bu illégal daanaka moom mooy mooy mag robele ma rek noonu la ko e te ñoom France seeni soldat bari na fu ñu ne ci adduna bi ñu ngi Sénégal jii xam naa ko ay ay mercenaires lañ c'est-à-dire mooy dañu war xam ne kuñ bëgg a yàq sa der ci la moom ni mu déggee politique nationale ak internationale bi Sénégal yu ko déggee noonu bariwul li li tax mooy dafa ne gënul ñu fi jëlee ab eh, ab réew wala sens drapeau jëlee fi bleu blanc rouge indi fi drapeau russe maanaam noonu ci ci saaro rek laay wax indi indi fi drapeau russe daal li li ñu bëgg mooy amuñ problème a France amuñ problème ak kenn waaye ku ñu àndal ku ñu àndal dañoo mënti continuer di nekk ak yow nga ñuy exploité di jël suñu alal di yóbbu ba France lay wax de di jël suñu alal di yóbbu li ma a am mooy gagnant gagnant cinquante cinquante loolu France du ko bañ. parce que am na fu mu ko nangu ci adduna bi fu mu fa dem cinquante cinquante la fay def te ñu ngi fépp nag ñoom ñu tax ñu ñëw ba ci ñu réew mi ne quatre vingt ñoom trois ko waral mooy ñoo nangu di nit lu nangu te kooku dagan français ñun gars yi naan mënuñoo tàggoog ñoom français yi même buñu tàgguwut ak nekkee ñun xam nga sa biir mooy mën nga am sa doom mu am mu nekk di mel melukan wu la néewut mën nga am sa waajur mën nga am keneen ñun mënoo tàggoog ñoom waaye la dugg ca ñoom te bokku ca man ngaa man man ngaa tàggoog loola moom it mu tàggoog loole moo ne sëñ Saliou Xaadimu Rasuul di wax naan rahmatullahi alayhi maam day fat fat dañuy wax ca nopp ya jublu ta tàggoo ko noppam la nekk ca nopp ya man ngi koy défendre waaye défendre population ba ngir ay intérêt personnel am di défendre nguur gu jàng ngir pétrole ba mu fay jëlee di ko dundalee di ko yóbbu dëkkam kon bu fekkoon ne tey jii dafa ñëw Sénégal ñun daa di am ay accord ak ci Ousmane Sonko doon président de la République man na ko fay téye éternellement du fi jóge population bu yëngu mu tiire mu tiire bamb France bu bëggee attaqué mu mu mu intercepté ay ay missilam loolu def ci Russie de loolay def ca Bachar al la fay def ca Bas ca Syrie Bachar al-Assad loolu la fa Russie def est-ce que est est-ce que méthode méthode euh, coopération bu baax na loolu la daan Ousmane Sonko di daw la mooy waaye nag ginnaaw bi nag ñu ko def. nangul na leen seeni xalaat ndax nee na mbirum nag option rek la option la rek naan da ngay xool kii arrange na la kii gënoon na la nga ànd ak kii doo ànd ak kii kooku moom kenn du ko forcer loolu maa ko ci bu baax la bi mu nag man wax dëgg yàlla moo ma ci dàqal mooy def ne yéen dana yokkal bi ndax dañ ko ne ba tey jo taw ji si ma daax de semence da ko ne yow kat da ngaa am problème judiciaire ak viol bëgg a tuumaal ne France moo ne ci ginnaaw loolu lépp Hmm. xanaa semence bi muy laaj bu dee moo xam nga professionnel la de Christophe moom noonu hmm. professionnel la boo xam ne ci semence yi adduna bi ku ko ci gën a nekk ku ko ci professionnalisme mën xonk hmm. waaye xam nga lu la lam tàmm ci Macky Sall tàmm ko ci moromam mooy seen laajaat pare orienté leen ne leen lii ngeen tontu ci tontu ko mooy ne ko ah li nga li nga def noonu nag takkal différence c'est extrêmement grave loolu la ko wax de c'est-à-dire mooy kon miimal li nga wax te xam ne loolu da nga ko wax waaye du dëgg Ousmane Sonko ne ko li daan wax ku yéem yéen a dem jëli jëli RFI te te média français la ah. yéen a jël le monde média français la mu ñëw fi di interviewé ak di maanaam di duufal ak di ngandal réel bi ngir bëgg nit ñi gëm ko hmm. waaye France ci biir waxam fen ndax li am fen mooy nee na réel imaginaire imaginaire lu ñuy xalaat nii rek aka bàyyi xel te xam nga hmm. kon nga xam ne seen seen débat boobu hmm. maanaam yàqu na am benn njëriñ li ñu nekk nag comme ay conséquences li ñu nekk ak ay njëriñ mooy lii ma jëlim bi ñu ko may conséquence danañ amaat beneen jotaay lim ko danañ amaat danañ amaat may tëjee wet googu nag mooy ci média France 24 koo xam li muy signifié ci France su ma juumlee 2024 bii ci la ci la France 24 di am ci la France 24 am ñaar fukki at ñoom bi ñu koy taxawal booba RFI mi ngi fi RFI dañ ko dañ koo taxawaloon ngir ngir contexte bi maanaam muy jox africains yi France muy jox muy jox africains yi information ak di leen tëw ak di leen jëmale ci fu mu jëm fa loolu mu réussir ko ndax. média propagande pour Afrique. réussir na ko ndax Sénégal da ngay dégg bu njëkkoon yàggul. diw de foo ko fekk RFI lay déglu diw dafa informe RFI lay déglu RFI joxul information. RFI ay propagande lay def joxul benn information. Hmm. France 24 nag bu ñu koy indi ñoom dañoo gis ne RFI liggéeyam ci Afrique la gën a màcc. Hmm. xam nga rajo France internationale lañ ko tuddee ñoom. am na sax am nañ sax RFI Afrique xaw ma am nañ loolu. waaye loolu bu ñu ko waxee nii ay ay waaye jëm RFI France ko tax ñoom bi dañoo gis ne média international bi maanaam jëmmi France ba tey des na ci aw taxawin ñu daal di koy forme def ci nag alal yu dul jeex bépp journaliste bu nit ñi xam ne rek doonul média privé de du média privé état France moo ko ku fay liggéey rek fonctionnaire ah. moo ko financé ku fay liggéey rek maanaam fonctionnaire d' état nga. ñoom ñoo lay fay am na ci adduna bi cent trente correspondant fu ba pare matériel yi ñuy utiliser keroog Ousmane Sonko gis ngeen image bi ni mel dafa mel ni mi ngi dafa mel ni mook journaliste yi ñoo bokk benn jotaay bu ñu toog xam loolu alal bi bare bare lañ ci investir gis nga chaque jour maanaam eh, li ñuy wax eh, système médiatique international bi wala système médiatique moom adduna bi moom lañ doon jéem a accaparer seen média am nañ ci nag satisfaction parce que chaque année bu ñu defee sondage yi télé yi ñu gën a seetaan daanaka dana bokk ci yi te Fra te information itam da koy joxe tànk tànk waaye ni mu koy joxee daa la bëgg a leer bu ngeen fàttali ko Charlie Hebdo euh, ji bi muy fetal mooy ki ñuy wax les frères Kouassi ñaari Kouassi Kouassi ñaari ko ñaari bokk yi sant Kouassi bi ñu fetalee waa ji ci buntu Charlie Hebdo xam nga dafa daanu dee caméra surveillance jël nañ ko mhm. te France 24 bi muy utiliser image yu mu wane ci caméra surveillance bi lay jël première image bi mu njëkk joxe kenn ki ñu fetal mu dee mu daanu am na am na wet am na wet gu gu gu wane xam nga. mais bi mu dikkaatee dafa dagg loolu nanguutu te wane loolu place bi lay wane ak waa ak allahu ak ak ak ak les frères ñaar lay wane. yaa ngi seetlu yaa xam baal ma wax Burkina Faso seen coup nit ñi doon daanu seen deret yi mel na xaru ñu rendi mi ñëpp ñëpp ñëpp génn noonu la leen génnee France 24 bi bu dee ko def bépp information bi muy joxe da koy calcul natt ko xool yan bénéfice ak lan la ci France mën a gagné ba pare. ak bu ko joxee pare lan la ci France mën a perte ba pare mu seet la ca France a gagné ak donte information bi dëgg la mu yàq ko ba doonul dëgg ndax nga njariñ la ca France amee ak bu dee du France mën a amee mu dëggal ko ngir njariñ la France mën a amee loolu moo tax information loolu moo tax France 24 jóg France 24 jógul ngir joxe information kon interview bi bëggoon loolu waaye ki ñu ko mooy jëmmi jëmmi France 24 am na arab am na anglais am na français ci yett langue yi da xam naa ne am na ko yeneen langue yi nag wóoruma waaye yett yëpp man bu ci ne daanaa ko seetaan daanaa gën a focaliser wu di seetaan arabe bi ak français bi waaye man bi moom lay moom lay gën di comprendre xam nga lu ci jublu Moyen Orient Afrique gii nii ak ak Amérique loolu lañ soxla ñoom waaye xam nañu ne des na yeneen langue ci adduna bi yoo xam ne ñoom ñoom mettre ñu ko ci seen ci seen seen boobu lii daal sëñ Fall laa la ñuy waaw ah, kay mi ngi noonu te waaw ah, waaw ah, mi ngi noonu mi ngi noonu comme danañ ci wax hmm. lii daal moom mooy li ma ko nañ ci def taxaw seetlu waxtaan amaana nit ñi sax dégg na ci luñ ci dégg hmm. waaw. waaw kon euh, sëñ Mourou xam naa ne waxtaan wi moom euh, leeral na ci lu bari yaatu trop tamit euh, ni nga ko waxee xam ne dafay def yoon Euh, dañuy ñëwaat ci suñu deuxième sujet bi nga xam ne bëgg nañ ci am sa xalaat muy euh, accident bi nga xam ne euh, mën nañ ne mësuñu ko dégg sax ci Sénégal benn ñaari bus yoo xam ne daje nañ lu tolloog cinquante personnes ñi ngi naan naan motu motu ko waaye lu tolloog cinquante personnes ci chiffre boo xam ne lu officiel la mësuñu ko dégg ci accident yi xam ne mi xew ci tali bi te it yaakaar naa ne scandale bu mel nii. médaille bi porté ko nii ñu ngi ko gëjoon dégg di bato la Joola tey boo euh, leen ñuy defal jàngat ci li nga xam ne xew na ba waral ñu décréter deuil national ban jàngat nga yéen. jàngat ma ciy def hmm. mooy bu fekkee ne minute dina ko mate ma naan beneen juróom minute rek ma delluwaat ci interview bi ah, bu fekkee ne na ko mate maanaam euh, ñoom France bokk na ci interview bi li tax ñu initié ko hmm. mooy seen société i ne fii nationale yi seen société ci biir dëkk bi. di xamal Ousmane Sonko na ko na da nga leen ci digalaat ñu dal ci ko waxuñ ko ko noonu de waaye saxaa bu ñoo Xaatib ibn Abi hmm. xam nga moom dafa dëkk dëkk bu jax siri ñoo màkk di commerce yonent daal di sasam daal di woote mu gëm ko ñibbi jëlee njabootam indi leen màkk dëkkal leen fa yonent bi gàddaay mu ànd ak moom hmm. bàyyi ak njabootam ca màkk di yéen a dépassé ak di leen dundal bi woote na Badrin dem na woote na dem na woote na xanaa bu yonent na ba bokk ci gën ci saxaaba yi bi yonent bi takkee benn arme ne màkk laa daa porte malade ne dem fi feebar mënut a dem xamul daam porte ah. njabootam nga ne foofu dana arme bi yonent bi yor bu demee sama doom ak sama soxna yi duñ ko duñ ko fekk ak nu mu xoolee ne ak nu mu xalaatee nag ban ban la mën a jógale waa Xuraysin ngir ñu aara aaraale leen ak njabootam daa bind lettre yëgal leen ne yonent baa ngi ñëw te ba xam nga def noonu yàlla nag ma ñu xam ci ma dara yaa ngi dégg xam ko ba ko yonent mi ngi taxaw hmm. mu ngaa bind lettre ngir def loolu bi mu bi sallallahu yëg na Jibril ne ko barab sàngam jigéen dana fa jaar nangu ko xaati moo cay wax lu nag ma ci Mm. yonte bi bi mu campé nangu lettre ba ca ndaw sax moom yón seet naa leen yón seet naa leen dikk jël lettre ba jox ko yonte bi dañuy bañ a dañuy bañ a guddal bu ko yonte bi lii dafa wala xaatim ne ko aatim loolu xeer ci di aatim ne ko bu ma gaawe defal ndànk mm. maa ngi giñ ci yàlla du moom naa feex ko comme laa Omar ne ko déet bàyyi ko ma ray comme naa feex la yonte bi ne ko Omar lu la ci leer kii ak kii ab badriw la dafa demoon badr te moom yàlla dafa leen a yër yéen waa badr koo ko fekke woon yàlla neen lu leen neex def leen yéen a xam mbaa yàlla ah. munul ginnaaw bi nga ma defaree lii mm. munul leen maa def leneen lu mën a xare jëmi France interview bi ñuy xeexee Ousmane Sonko gëmuñ ko waa xam nga luñ bëgg Ousmane Sonko moom mooy mbay ji réew ñu jéem a maslaa moom ngir maam bu problème amee ñu yërëmal leen seen waa réew ñu ne ci réew mi di exercer loolu képp la léegi nag bu accident bi ah. accident bi man ma cee gis loo xam ne dafa metti lool waaye Macky Sall metti lu ko ah. da waaye da da koo politique waaye rek ma ma jëkkee di jëm ci wàllum sa force hmm. xam nga accident bi. chauffeur yi du ñoom dong de gis du ñoom dong gis nga député ya wote woon ca oto ya ne maanaam oto bépp boo xam ne am na lépp cinq ant ak ña defaroon document yi ngir ñu wateel leen ko ak Abdoulaye Wade moo ko ma ko watelu woon am nañu am nañu responsabilité ak accident yi di am Sénégal ñoom ñëpp ko ci am sëñ Fall ñoom fii fii Sénégal da nga fi jënd oto boo xam ne am na fi trente ans màggat bay dagg di wat daw Abdoulaye ban discours maa ko dégg mu ne mooy de cinq ans kenn du la koy de ndax dañuy dawal seen oto ba màggat ñu fi nekk yu gën ne xam nga ñoo a màggat kon des fois ñoom bi oto bu màggat bu bu màggat seen réew la ñuy tàmbale jeex oto yu màggat yi ba denc leen ba pare yi ko loolu mooy procès bi nga yi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal mën naa la tudd seen tur waaye du ko jar hmm. dégg nga ñoo dañoo defar seen luwaa ngir bëgg seen oto seer ñu mën di jaay ndax dugg oto yi dugg ci réew mi dafa dafa dafa seen dafa wàññi seen chiffre d'affaires ñu yóbbu ko assemblée def seen seen lobby yooyu ni comme ni ñu tàmm def rek bañ ca bañ yaa ngi dégg lu ma dañoo bari oto bii bii bis bi man du wóoruma waaye dégg naa ne daa am problème pëna loolu lañ wax ci xibaar yi ñeenti pëne yi léegi problème baa ngi noonu ñeenti pëne yi xam xam nga saa mooy oto yi ñoom lim leen dikkee dafa seer dégg nga gasal dikkaat seer hmm. xam nga ñuy liggéey ci oto bi daal di bari am na loo xam ne buñ ko maam jëm ni technique bu war ci oto bi pour oto bi a daw mënuñ ko maintenir benn di ci am dara ngir système étatique bu bon maa ngi ñëw du ma la ci génne de ñoom ay responsable lañ ci encore ñoo ñoom ay responsable xam nga moom moto accident saa su amee nit mënoo cee génne maanaam kiy dawal muy chauffeur bi ak li dawal muy oto bi ak fi koy dawal muy télé bi ak loi ko tënk ngir muy dawal muy muy gouvernement bi ñun ci maam responsable yi da da da nga koy kenn ku ne nga xam la cay responsabilité am nga xam mooy man oto yi waxtu yoroon naa fekk ñu bis yoo xam ne cest mooy tubarkaal la waaye ñoom transporteur yi association transporteur du ma tudd seen i waaye am na fi ñoo xam te c'est-à-dire mooy dañoo regroupé wu su état bëggee jóg bëgg a sens système transport bi ñu regroupé daal di geraw daal di koy teg pression mu daal di arrière ñun Sénégal noonu lañ dal ñun ñooy nit ñoo xam ne amuñ solo laal a wax ñun ñooy nit ñu amul solo médecin yi regroupé wu. am médecin di rey nit si si si si soo ko war ko àtte ñu doog di banque seen loxo état du xam nu muy def yaa ngi dégg mu bàyyi leen su góor nay def lu leen neex am déet moo tax ñun ñun dañu dañuy font lu ci bari ñun la dañuy font maam ji ñun ñëpp lañu jàngalekat yi def seen ak kuréel bu kenn ci ñu amee problème ñu banque seen loxo ñu ko bàyyi si si si di reculer waaw kon ñun ana ñan nag ana ñun ñun ñëpp ñu na. comme ni nga ko waxee sénégalais yi bu serveur si di mars da ngay gis ne serveur si li ñuy ko du ñoom la ñuy faral euh, a détriment de euh, régime xam ne mere nañ ko nguur gi ah, nga loolu du analyse technique. Hmm. bu dee da ngaa rek da ngaa rek amoo analyse technique man man wax na la nguur gi. Ah. am ñoom liñ ci am. comme responsabilité. su may àggalee point yi bu soobee yàlla. Hmm. danaa ko indi surtout ni mu ko politiqué li mu gën a metti nag mooy loolu. c'est-à-dire mooy jëmmi corporation yi journaliste yi ba am journaliste wàcce yoon ñoom xamuñu ko parce que parce que xamuñu loolu de xam bàyyi ñu ko bàyyi ko insisté dañuy yónni nañ ko bàyyi teg mboolem mooy yu tax ñu bàyyi ko ma jambal jaan ba ko Abdoulaye Wade jàppee diffamation la defoon ba ko Abdoulaye Wade bàyyi bàyyi xamul ba ko ngir affaire bu tar ci laay waxee léegi nag ñun nag bu jaaykati gerte yi bennoo di naxe nappkat yi bennoo di naxe kenn ñenn ñu ne bennoo di naxe ay waa jële léegi ñun Sénégal bu ñu war a dajee penc mi ngir di jël def moo tax ne ni situation yi nga gis nañu ko dund rek ñëpp ñu ko dund chauffeur bi encore une fois itam keroog bi la Macky ba mu dikkee pompier ko def dañ koy woo topp ko danoon danoon campagne yow tax ngay permis à point ko gën a garaaw mooy jëm a ne panget sa permis nangu ko dafa am gis boo xam ne ka ko def moo ko tey léeg gis boo xam ne ka ko def tawuñ ko de nga leen gis koo xam ne def moo ko xam a bëgg a dee a rey nit maa amut bien sûr kenn ku bëgg waaye am na ci def loo xam ne koy defaa nga xam nga ne loolu bakkan xaj am na ci yoon ku koy def wóor na ne lii ngay def bakkan ci def nag xam ne ay risque da cee nekk tam tam a ñàkk ku ko def boo ci rey bakkan yaa ko tey yaa ko tey loolu dëgg ah léegi nag bu dee bu dee état état bu oto moom mooy li ma la ci wax rek te oto yu bees dañ ko mën tam nga xam ne leen ku def bari dafa bari dafa bari tey jii bu ay nit dajale woon fii kese Touba gii génn seen 3 milliards ne dañuy def benn société oto yaa ngi dégg daf fii seen garage état amul fi autorisé ah, ñu ne fii tudd salaam yaa ngi ne fi yor seen Ila Touba di wër di yóbbu nit ñi transport bu neex boobu lu tee ñu ko parce ñu bu ko légaliser rek dina seen transport dox ak ak ak ak oto ndaw yi di taxaw si jumaa ji ah. police yi di xëy di leen jàpp ba jant lu tee ñu légaliser loolu teg ko ci yoon di leen fayu parce que ñemewuñ ko ñoom état mooy li xam lu tax ñemewuñ ko organisé wu bu transport ancien transporteur organisé wu ba koy dugg force ngay demee garas loolu man réew la am man réew la am ci réew moo xam ne moyen de transport bi ñu am bënk nañ ko ñoom transporteur yi téye ko ba kenn mënu cee jot ab saak képp boo ko yoree ñu ne la ñu la koy fayal te maanaam boo waxee ñu dépassé la tout de suite man fàmm naa ci tukki ba tey ndax man bépp tukki boo xam ne damaa di wax ak yow koo mën a doon laa la wax de ah tukki ma dikk dikk am damay daat teg quatre cinq bagages ni bi toog man la ma ko gaafa gaafal moom fàmm naa ci tukki ba tey waaw moo tax nga xam ne ñoom ba ñoom seen kuréel googu li ñuy sëfoor ak ambrante xam naa danañ ma seetaan man naa am ñu waaye li ma leen di wax man buñ ko dee mere tam nañ xool ba xam wax naa dëgg wala wax ma dëgg loolu rek mooy solo su ma waxul dëgg ñu ne waxul dëgg loolu rek mooy solo si man na jàpp naa ne wax naa dëgg boo demee ca marché Ocass ba ñuy commercé mag dina fa ñëw di jënd mag dina fa nekk di jaay waaye gone ya fa nekk di commerce ak di yaxantu duñ wax ak kenn kenn kenn kenn kenn ba daggu saaga duñ wax ak nenn mag mag ba jànn ko ñu ko moytumal naa ma nangam man de ba jamono ba ma daan dugg seen éléments yi oto bu dugg fekk ci xale bu ndaw di emprunté wu di wax ko koo xam ne mën na ko nday wala mat ko bàyyi ci boobu boobu képp laa ko gis yaa ngi dégg gaa su mécanicien yi day yendu naa fa tay te ñoom sa réew ñu liggéey ci la fa sama oto waaye yandu yandu yandu nga dégg fa ko daggu saako may dana fa am nag ndax xale bu góor moom ñaata day saag xam nga la waaye ab gaaraas moom tubarkaal saaga saaga moom xanaa ci suñu xam règle générale la règle générale la ak ak ak yeneen ak yoo xam ne ñu noonu rek xam nga beneen ñooñu nag ci seen comportement yooyu yi ba ñu daaw day déggoon si oto bi li muy dox ba kaw tegoo ci kaw tënk nii naan tey oto wax dëgg oto li muy dox wuroo ko xalaat xam nga lu muy lu a xalaat tableau yi ñu def ci kaw tali bi mu santaane nga di ko def ndax ñoom li lay sant dañ la bu mën ta ñàkk mën ta ñàkk defal cent onze loolu loolu tegtalu ne cent onze nga fara doon li muy ba daw quatre-vingts sax baax comprendre waaye ñoom yooyu seen yoon ma tax saa su na waar bu dee bee ñoom seen bu dee bii am tey seen responsabilité mën na ca bañ a bari ndax wax dëgg yàlla wala kon bi ciy bëri mooy teg visite visite technique da ciy war a baax yëpp dafa war a baax damay mm-hmm. dégg wax léegi naan Macky Sall moo war a nekk taxawaayu euh, état état du ñoom ban taxawaay la ñu war a mën nga xam ne luy continuer la daal loo xam ne dina mën a saafara li lu mel ni ba loolu dootul am wala dina wàññeeku. man de damaa seetaan France benn bis ab xale bu newoon ci balcon bëgg a daanu. benn malien feex ba sowe ko. Mm-hmm. xam nga ko ko moom. waaw mais gis France gépp génn. di ko sargal waa ji nekkoon fa amul programme problème kayit dina boo ko làqatu ñu ne ko dañ lay may nationalité waa ji nekkoon fa amul fu mu ñu ne ko loo bëgg liggéey mu ne man def sapeur laa bëgg doon ñu intégré ko sapeur pompier kooku dafa jiwut conférence bu fa nit dee ba ba ba fa seen 17 personnes dee ci dañ ko manifesté ba fa seen kenn nit dee par accident am na benn crèche euh, hélicoptère fa amoon gis nga Nicolas Sarkozy Ah, ah, hélicoptère yaa ngi dégg ñoom faale nañ seen situation bu dee waaye sëñ Fall bétante yaa ngi koy fàttaliku du vingt et un dégg nga leen fa xamul tax déggoo leen booba dañuy door a falu seen ak fal dëgër këñ di doxee di doxee ñoo tey ah, voilà mooy mooy mooy li ma bëgg leer na rek dañu dañ ko politique amutoon minicar bu fii daw daw ba yàgg mu jékki-jékki tàkk nit ña dee ci dee ci biir minicar ba jàng fàttaliku hmm. dix-sept personnes ya ah yaa ngi fàttaliku benn benn accident bu amoon ci yoonu Kaffrine wii ndeysaan ñaata li moo ci gis nga cinquante quarante neuf personnes cinquante neuf personnes hmm. dayo boo leen jox ci métti lu seen i mbir na loolu ndax dañ leen ëpp waaye kenn nit ku dee képp ci par accident hmm. daa war a jël chef d'état jóg te man gis naa vingt et un personnes ba ci ba ci ba ci arme bi armée bi mas nañu am seen benn gaal bu dal ci benn benn lool nit ña dee loolu fa da danañ ko des na sal moo tax ñoom li ñuy def nii xam nga lan 2024 bi dëgmal dong tax ñu politique di ko dee national Sénégal yow mas nga fay dégg dee national man nit ñi dañuy door a dee dee national ba amee France ñaar fukki nit donc ñaar fukki nit bëtuñu ko 17 personnes ñoo dee te ñun ñaar fukki nit ak dara ci bétant te gaal ga te wallaahi laa seen dee national amutoon ndax boobu daa jaaduwul wala ñooñu seen dee daa dafa dafa dafa fetewut amul parce que ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen boo tax nga xam ne ñoom seen dikk du tus lam metti te metti mooy nee ñun waaw deux cent millions bërigi dém boo njaay suñ Covid bii nii am nañ ci problème mu sëñ bi ay milliards yu ñu jël yu ñu lekk te ba tey waxuñu ci dara moom Macky Sall no ne euh, officiellement li ñu reconnaître ñoo ko lekk oh, six milliards yooyee ak leneen la leewal bu ñu ko leewalutoon hmm. def li wax bonne gouvernance tali ba mën naa baax oto yi mën naa baax accident du am liggéey ba du foofa hmm. liggéey ba mooy ñu dem liggéey lañ leen di liggéeyloo mooy nit ñi nañ leen yërëm accident bi nag sëñ Fall maa ngi daalawaat rek nit ñi metti na metti na ba ca kanamu yàlla waaye dañu xam ne ñëw président googu du tus politique dong la. kon euh, ma xam nga ba ba fàttali ko daaw ba fàttali ko daaw bi sa soxna soxna soxna faatu dama ne keneen dana faatuwaat. keneen dana fii it keneen dana faatuwaat accident bi dina keneen dana faatuwaat fi ne. danaa ma xam nga accident démb rek rek am na France su ma juumalee. ah Côte d'Ivoire gi am na accident du ñàkk ci àdduna. waaye war nañu a soree. te bu amee itam wërta mën a mettee mi sëñ bi da ngay xool quarante na personnes dafa bari de dafa bari dafa bari du trop awat na liggéey loolu loolu loolu war naa mën a ñàkk oto yu baax lañu amut na bari itam sëfoor si c'est-à-dire mooy maam jëmmi satisfaire gi ñu war a satisfaire ci li leen jàppale matut loolu ñun ñëpp loolu kii jaay gerte rek ki jaay suukar rek ki jaay ndox ñëpp a sonn sëñ bi waaw bis waaw accident yi daal Euh, bari na boo demee ci médecin yi ñu ngi ñu ngi def ay gerte sax léeg-léeg nga jaay nit gerte erreur am accident la waaye ñoom seen ginnaaw ba ñoom wàllu ruux ak transport ak jël ak yóbbu indi ci la ñuy liggéey ñoom bu accident mi ni tey dee seen métier itam met na din paar ndax mbirum safoor rek nga gis mu xëyee sa këram sangu ba set sol yérem yi baax léegi ba surtout ak soxnaam ne ko ma dem barab sàngam na ñëw balaa ma trente minutes ñu wax ne ko sa jëkkër dee kon xam nga ne moom métier moom métier malaaka la rek waaye ba tey bu fekkee ne itam ñu ngi may dégg bépp safoor bu général man maa ngi lay digal sàmmal sa bopp sàmm sa njaboot sàmm ñu la yàlla booleel mooy ñuy dugg ci sa woto dama ko ñëw del dawal te dal ndànk. aussi tamit euh, yar euh, ah, ma la rek maam dajaa am ngay dajaa am. Euh, citoyen sénégalais yi gis nañu yaa ngi yaa ngi wax ne wax naan waaye tamit est-ce que dina yàgg dina dina dina yomb même bu état euh, ma la wax mooy ma wax ma la nga Sonko bu dikkee hmm. ndax Sonko fi ne nii nit ñi xam nga lu mu leen wax lu mu leen wax état de droit xam nga la leen wax hmm. ak développement hmm. te xam ne développement du du maanaam gi du suuf si ndox mi xam nga lan la jëmmi nit ki la ñuy jubbante wala gis nga gars yi ànd ak moom ñooñu léegi problème ndax xamuñu ko xamuñu ko de ndax xamuñu ko mooy dañuy dawal oto amuñu assurance dajee ko police daal di koy neexal yaa ngi dégg fekk yow jàpp Sonko jaar fa lay neexal police bi ne def nga ñaari infraction ci jamonoy Sonko laa la de tentative de corruption nga dem tëdd kaso nga ne Sonko laa bon foofu lañ jëm moom moo tax ma ne nit ñi nañu waaye seen bopp parfois ngi di gis naa ndax atum islam lañu war a indi ci dëkk bi atum islam man man man man man mi ma juróomi at danaa leen formé bara doo leen yóbbu ci àtte ba parce que ko defut boo boo ko appliqué suba ñoom ñëpp rey ndax xamuñu ko tey la dund mooy leen def juróomi te xamal leen ne ca àtte lislam lañ jëm su ma ko ko waxee rek loolu ni ko Assane Gueye di waxee ñu sañewu ko Assane Gueye Sénégalais dañoo ñàkk yar xawma <laughs> am ñàkk <laughs> ni ma ko mën a waxee mooy maanaam culture bi bi bii tax nit ne ci adduna di def li ko war ah. lépp lépp lépp li ko li ko warul lépp mu di ko bàyyi kéem talaay kàttanam loolu dafa dafa nekk gul ci ñoom loolu nag il mu nekk loo xam dañ koy cultiver ci ñoom loolu dafa loolu moo gën ni ko Assane Gueye di waxee waaw ah, Sénégal dafa dafa arrogant Sénégal dafa li loolu du dëgg du dëgg Séné waaw Sénégal yi du dëgg ñàkkuñu bi daal arrogant wuñ dañu xamut ci disponibilité bi eh, di joxe dig daje rek ba beneen yoon ci beneen waxtaan incha